De la même manière. On n'a pas besoin d'hommes pour ah, organiser une conférence. Déjà defee wuñ ko si école bi léegi ñun fii lañ ko defee léegi dangeen ngeen ñuy wan notification bi wane ne la direction a interdit votre conférence de presse. tamit ci école bi la bokk. lu mu bokk si école voilà fii si école la bokk fii si école la bokk d'accord nañ fii si école bi la bokk d'accord nañ mais ñun employé école bi lañ plus que yéen yéen amoo leen droit ñëw maam la dañu ñëw di ñaxtu loo xam ne ñun ñoo ko moom ah dañu ñëw di ñaxtu loo xam ne ñoo ko moom xam nga dugg ñu ci école bi 3 boobu tamit. da ngeen yàq lépp li ñu doon ne ko dugg ci enceinte école bi te ñun fii la ñuy liggéeyee. donc a pas directeur ñëwul. kenn ñëw dafa jël ay kiiw ñëw ne pour dañuy interdire. et ce qui n'est pas normal nous sommes des employés dañuy ñëw di jax ñaxtu suñuy arriéré de salaire loolu moo ñu indi fii. donc ñun tey bu ñu neexoon tamit ñu ne sax ci biir lañu koy defee te bu boobaa suñu droit la ñuy def. xaaral ah, eh, waaw bu ñu caméra yow tamit. non non yow waaye tam tam lay def non laaluñu non y' a pas souci. non y' a pas souci. non fii de dafa màgg rek ñun ñoo ko def wala wala laal ko nag wax leen ak ñun rek wax leen ak def nii laaluma sa caméra. mais personne n'a le droit de non la jëntooñu sa caméra. mais caméra am na buñ kii quoi. amoo leen droit defee ko fii amoo leen droit defee ko fii.

Dur dur dur dur. sawaay sawaay wu ma sawaay wu ma dama lii la xam lii la xam xool si rek xool si rek